liggéey bi jëm ci autopont front de terre indi ay jafe-jafe yu bare bari askan wi naam nameeku nañ ne bi ñu koy tàmbali am na ay diggéey yoo xamante ne bii ba léegi France daal di xëddeem. dama màggale woon bi ma ñibbisee dama ñëw fekk sama dal dagg ma dem déclaré ko waxuñu ma demaat déclaré ko waxuñu fi mu nekk nii nag dal bi nu mu daggee maa ngi fay jaay ak sama njaboot dem naa nag wax naa leen ko nee naa leen lu ci munti am ngeen assumé ko. ndax dal bi daggana na clients yi ñëwatuñu mais man maa nga fa ak sama njaboot toog di xaar. Euh, gars yi ñëwoon nañ keroog binduñu yàgg na nag war na mot léegi ay huit mois tardel ñu nag luy parce que jël nañ suñu temps yëpp lu mat trente minutes ñu ngi wax ak ñoom di laaj di la di la laaj ay ay ay ñaata doom nga am ñaata kii ngam am ba léegi nag gisuñu dara dañuy laajte nag ndax affaire bi daa génn ñeneen kii ko wala wala génnul. neexul. nga toog ay huit mois di souffrir onze mois presque novembre ba léegi depuis le vingt trois ñu toog di souffrir te yor ay soxna yor ay doom yor ay ndey yor ay baay di leen dundal te ñun sàcc ñu fenn ñu agressé wuñ ci li ñu liggéey rek lan leen bëgg a dundalee waaw comme ni ma ko waxee sànq rek ñun nag nekkuñu fi di marché di takk ay morceaux yu xonq wala ñuy taal ay pono di dugg si ay osan di yàq defuñu ko defuñu ko c'est pas parce que mënuñu ko mën nañ ko parce que tamit bu ñu neexee def ko mais defuñu ko dañ koy wax ci njekk ak teraanga comme ci njekk la wax ñu wax ko si njekk lillahi wa rasuli mu gestu ambulance yi parce que ñun sonn nañ parce que tamit ñun luñ yor suñuy place ñu jox ñu ñu jox ñu délai nañu jour tel na ngeen fi jógee jour tel boobu avant muy ñëw ñu daaneel suñuy magasin rajaxe ko jël yenn bagage yi ba keroog police moo fi mujjee ñun tamit nag comme xeex ak état yombul ñu toog tamit jàpp suñu jàmbur rek mais lillahi wa rasuli daal ñoo ngi koy lancé appel pour ñu gestu ñu parce que ñun ambulance yi sonn nañ newuñu fi di dem ci gaal yi newuñu fi di dem ci ay Nicaragua wala ci ay yoon yoo xamante nii c'est pas comprendre liñ man daal mooy toog suñu réew mi liggéey ko parce que Sénégal gi nag jarul jarul xeeb ku fi toog góorgóorlu ñu yombalal la ko defal la facilité yëpp mën ngaa am mille chances pour liggéey mais nañ ñu yombalal fi lii laa war a ñu liggéey parce que ñu ngi nii di defar benn pont baare koñ bi yëpp man des pour man sax garaawut mais des ñu jàpp benn maire wala benn paa boo à l'âge de soixante-dix ans di ko wiiriloo ci travaux yoo xamante pendant huit mois nga baare ko des benn maire yor fi ordonnance war a ñëw ci pharmacie bi tout près mais day def grand tour pour wiiri loolu tamit mën naa ñàkk travaux bu amee ba am la moyenne du sol war nañoo ubbi donte ko benn porte la sax pour ñu fay jaar di fa dem mais ñun mënatuñoo am accès am accès si war a lekk war a naan war a fay location war a joxe ay dépenses dëkk ba du ñu xaar te ñoom xamuñu lu nekk fii moo tax ñu koy lancer appel pour que mu gëstuñu parce que sonn nañ. le président son excellence Macky Sall mu xam ne am na waa doomu réew mi ay njabootam euh, ñu nekk fii vraiment di sonn di souffrir donc yor seen entreprise yor ay liggéeykat donc il est temps que mu bàyyi xel euh, vraiment su ñun. parce que fu chantier nguur gi jaar yëpp daanaka dédommagé nañ leen jox nañ leen ay ndàmpaay mais bi foo bi boobu ba léegi ñun dara parce que ñun toll nañu nañ fi nga xam ne ay mag lañ duñ fi nekk di takk ay brassard rouge duñ fi nekk di yuuxu duñ fi nekk di xeex pour ñi dédommager ñu avec la presse c'est la première fois parce que affaire u mag lañ koy def gars yi dem nañ gis Mansour bon Euh, cabinet Mansour Faye ñi ne tey suba tey suba bon waaw directeur cabinet en personne mais amul fu mu mujj waa Ageroute recevoir nañ ñu liggéey bi recevoir nañu mais amul suite ci jamono joojee am na boutique yu bëri yu tëj place yi itam naka noonu askan wi ñàkk ci xaalis bu takku ndax affaire bi métti na sonn nañu jaaxle nañu amuñu wallu amuñu dara te lii nag ku ko def war a mën a gestu say doomu réew te ci réew mi la bokk. waaw ñu ngi laajte ñu ngi ñu ngi laaj suñu ndimbal quoi maanaam ñu ñuy mën a ñuy jàppale parce que yàgg nañ fii te sonn nañ ay borom njaboot lañ. ñoo ngi lancé appel daal monsieur Mansour Faye di wax ak tamit euh, premier ministre Amadou Ba di wax ak tamit son excellence monsieur Macky Sall liggéey bi rafet na trop mais comme ni ko sunu grand frère waxee sànq rek xam nga liggéey buy avancé ñun ñuy arrière muy baax si ñoom di métti si ñun tamit loolu day métti. ñoo ngi koy lancer appel daal mu gëstuñu dañ koy waxtaan nag si njëkk ak teraanga parce que réew mi danoo sonde barki yàlla danoo dukkure danoo dukkure maanaam yoruñu ñun ñun amuñu amuñu daal maanaam ñun amuñu jeexal mujj gi liñ dencoon suñ compte man maa ngi nii am naa am am naa am naa am naa compte banque am naa ñaari compte banque ba ma ci gëjee def ak léegi kenn xamul kañ la démb rek woon ma naan ma temps yi monsieur la am ton compte xaw ma leen bougé wut may leen du bougé parce que front de terre bi mooy tax ñoo ma Euh, ay kilifa lañ ay mag lañ euh, préjudice bu mu ñu porté bi ñoo ngi rafetlu nag macha allah liggéey yu liggéey parce que ñi ne munoo am omelette te tojoo nen ah on peut pas faire des omelettes sans casser des œufs mais nag aussi gesul ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq ñi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw borom restaurant yi ñoo ngi fii borom pharmacie yi ñoo ngi fii ak ñeneen ak ñeneen donc vraiment téer yaa ngi fii vulganisateur yaa ngi fi ak euh, magasin yi quincaillerie yi marchand ambulant yi ñëpp macha allah donc nguur gi il est mu gestu xool njabootam ñu ngi fi incha allah ñu ngi koy félicité nag di rafetlu liggéey yi waaye nag liggéey dafa yàq lu bëri di moment que liggéey bi di avancé moom liggéey bi di avancé ñun suñ liggéey di reculer donc na si bàyyi xel incha allah waaw loolu daal lañu koy doyee. gannaaw yi la jafe-jafe askan wi nekkee ci béréb bërëb nga xamante ne liggéey bi dafa leen gàllankoor ñu ngay sàkk ci nguur gi mu assumer responsabilité am wante itam mu jox leen ab ndàmpaay ngir ñu mën a wóyal seen activité laata bi leen liggéey di jeex.